salaamaaleykum internetu KS TV Sénégal maa ngi leen di nuyu bu baax di leen di ziar ma naan leen ñu ngi fii si Géejawaay ci biir mairie ville bi mairie ay dara bi ñu ngi fi li ñu fi dajale nag tey moo di foire bi nga xam ne mooy am fii chaque année euh, artisans yi di ko def tubaar fakàl la macha allah lépp loo xamante ne ni lu taaru la wala lu rafet la rek boo ñëwee fii si foire bi di nga ko fi fekk yomb na wala yombul nag di ngeen ci am lu leen leer te léegi léegi lay doon man ak di jéego dinañ dugg ci stand bu nekk laaj leen ñoom naka la ñuy jaayee seen exposition teg ci beneen bi euh, ndax cher na beneen bi si topp dinañ jël ñi nga xamante ne nii ñooy ji ñi nga xam ne ñoo ko initié dinañ waxtaan ak ñoom ci lan moo waral foire bi lépp dina am te léegi léegi lay doon incha allah man xaar dëgër musóor ajaa xaar dëgër musóor sànni jamra daa metti ànd ceeg DJ Go waaw kay Go sama xarit boobu nga xam ne ànd nañ fu nekk kon DJ Go dañuy daal di daagu ndànk nag dugg gis gaa xool laaj leen ñoom naka la ñuy jaayee seeni prix seer na wala seeru ak leen fi tax a ñëw ñu dem di jégoo xambaane soxna si ñu ngi lay nuyu Salihat. waaw ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax sama yaay Fall bi. ma bàyyi la rek nga présenté amul benn problème Mia Salihat Couture ñu gën ma ci xam loolu ma nekk styliste euh, di ñawee marché Sam marché Sam laa ñëwee ci marché bi sama place foofu la nekk H24 nag dañuy liggéey dañuy livrer ku ñu woo suñu livreur yaa ngi taxaw dañ lay jox rek ñu livrer duñ ko tardel ñaw duñu yéexal ñaw am nañ ay tenue góor tenue jigéen. xale yi sax fàttewu ñu leen ci ñun saalixaat am nañ ay savon yu baax ay saak ay euh, musóor yu jongoma yoo xam ne comme bi nga def nii mais am na yu gën a jongoma ak ay saak gépp ñun lépp loo xam ne ay accessoire la rek ñun saalixaat ñi ci lañ nekk incha allah xam naa sama paree sama caméraman dina ma génneel musóor bi sama li ma li ma teg ci tay ci orange dina ko génnee léegi incha allah waaye laata boobu yéen euh, da ngeen ñëw ci foire bi euh, jël stand di jaay ndax njaay mi mi ngi dox waa Ndiaye moom mi ngi dox ndànk-ndànk ndax li ci ëpp moom dañ naan dernier moment la ñuy ñëw ndax xam nga Sénégal dafa bëgg dernier moment dañ lay laaj ngeen tëj ban ngeen tëj xam naa ci dimanche bi comme ñun instant yi nii deux jours la ñuy fi dese ci dimanche bi la ñuy tëj foire bi nag defoon nañ ko daaw àndoon ceeg suñu président Moussa Fall moo ñu ci gunge woon ñu defee ko ca terrain basket ba ren nag moom mu ne dañuy innover ndax parce que ku def ren euh, lu ndaw da bëgg mu yokk moo tax ren mu indi ñu fii ci stand maire ville bi ñu fas yéene def macha allah xale la te mi ngi liggéey moom lañ àndal ay membre FENAF lañ andi mbaa seeru non non Moussa da cee def xéewal bu gën taw feexi xam naa ne déwén sax gratuite lay doon incha allah. mais yow wax nga ko da ngeen di ñaw ci yére xale yére mag euh, comme na li comme yenn genre ngeen di ëpp loo leen di ñaw. li ci ëpp nag ay tenue cérémonie la ñuy ñaw parce que ñu ci bëri dañ lay woo commande ne dama am cérémonie léegi nii dîner de gala wala fu ma war a dem wala dañ ma invité. moo tax yooyu loolu moo ëpp la ñëw mais dañu ñëwal ay góor ay près du corps parce que góor ñi dañoo wati génn di sol ay près du corps des fois ñëwaleen près du corps yoo xam ne dañu rek dañoo war di utiliser produit local bi nga xam ne moom la ñuy liggéey ci réew mi moo tax yooyu la ñuy jaay. nga def sa vaccin gis naa loolu mais musóor yi moom mbaa cher nga mën dëgër musóor. ñëpp xam nañ ci musóor laay dox bu gars yi day musóoru tey ci man lañ ko gisee ndax man yére tubaab sax dama koy sol ne ci tong sama tagal ndax jigéen musóor du koy daal di génne léegi nag tey ñu gis ne gis nañ fi ay musóor musóor yi mbaa waaw mouchoir nag moom ci prix yomb lañ koy jaayee mook suñu savon yi lañ yemale ndax savon teint noir bi man moom laay sangoo te gis nga saabu yi macha allah gis nga sama teint loo xam ne moom la ñuy jaay moom la ñuy utiliser moo tax ma def vax ndax ma aar la te te jigéenu dañ leen xamee ay vax marinière jongoma moo tax ñu def nii rek def toq jongoma rek yaa ma gën a xam macha comme ñu ngi lay jaajëfal di la kontaane nga bëggoon a waxte laajuma waaw xanaa kontaan rek kontaan ci foire bi bu baax a baax di remercier ñoo fi àndal sama mag bi Yvonne ñaari xarit jëkkëram ak madame Thiam day Babel sama copine bi Toulaye Fall ñun ñëpp maa leen di remercier mais foire bi neex na torop torop macha allah. jëf Salihad. ok merci dëggal Musoor. si ñu ngi maa ngi lay fay. waaye la nga présenté wu. waaw maa ngi tudd maam ñu may wax Lolita Fashion may ñëwee Cité Fadia ci côté Brioche Dorée bi. tey nga ñëwoon fii ci foire bi tey lan nga ñëw exposé ko fi. waaw dañoo ñëwoon ci foire bi ndax ñun ay doomu géejawaay la. ñu ñëwoon exposé yére olof marinière robe taille maam def balage chemise yëpp si biir daal mais lépp nag consommé locale la fi lañ koy jëndee fi lañ koy daggee fi lañ koy ñawee. dama gis foire bi nag lu ci ëpp rek consommé local kese kese moo fi nekk ay vax euh, mën naa ne daal euh, boo ñëwee rek da ngay xam ne yow sénégalais piir nga euh, dëggantaan tey lan la fi nit ñi di ëpp la ñuy jënd. waa ndax sénégalais moom xam nga dafa bëgg cosaanam te ñun nit amul lu sa aada ndax li ñuy jëggaani ñëw di ko indi ñu wane di nekk fii moom moo gën comme vax yi ndax ñun vax la ñuy sol voile borode basin yooyu la sol kon loolu lañ mën a. indi moderniser ko rek ñaw ko ñaw yaa ma gën a xam ba mu gën a tubaabe daal ñu jaay ko nit ñi. jënd si nag lan lañ ëpp lu ñuy jënd ndax gis naa fi ay parfum gis naa fi ay cuuraay gis naa fi daal lu carax tubaar fakal macha allah gis naa vaccin yi nga xam dañ ko ñaw robb di je robb yaa ngi noonu ci suuf daal di am ay cimbir ak i cambaram. waaw ndax ñëpp la ñuy jënd ndax jigéenu sénégalaise moom lépp la bëgg cuuraay daal sañse mais yëre yi nag lañ gën a jënd moom man moom yëre yi laa gën a jaay. wax dëgg neex yàlla yëre laa gën a jaay mais def nañ ay façon ndax comme bu dee comme modèle bi ñoo ngi ko jëlee ba ko d'Ivoire ndax ivoiriens yi ñoo koy ñëw jël vax si def si cimbir def été mooy loolu. macha allah kon daal suñuy doom daal xam nañ ne daal ñoom mën nañ seen liggéey euh, tey ñu ngi cay góorgóorlu bu baax tey foire bi bi mooy deuxième édition bi euh, première bi ak deuxième bi yow ban mool dàq. waa bi mooy première bi bi moom xaw na sant gay <laughs> ndax yaa ma gën a xam ni dëkk bi demee moo tax première bi moom donte. gàttoon na ñett fan la moo dàqoon moom mais xam nga nag ñu naan l'homme propose Dieu dispose jamono ju ne ak la cay xew instant bi moom dëkk bi xaw a jaxasoo loolu moo tax comprendre nañ mais sant yàlla rek lépp dina baax incha allah. merci beaucoup. ok merci. man la Fatou Mbaye ñu gën maa xam ci maman may képp maa ngi Guédiawaye marché Sam dañoo ñëwoon ci foire bi exposé suñu perruque yu rafet yi fulaar yi carax yi saagi ak suñu diw traitement bi. may këpp gis naa ne yow macha allah képp ku bëgg kanamam jak rek bu ñëwee fii si foire bi yeg see ci yow rek nga defar ko ba mu rafet. waa ci yoon ci yoon ku ñëw ñu defaral la ba nga baax boo ñëwee tamit ñu defal la crayon ak cils boo bëggul maquillage ñu defal la crayon ak cils dëgër yow boo paree ñëwal ma crayon la cils la balaa ngaa génnaat fii. Eh, yow wuyul lii man damaa war a feeñ musóor yi tamit tubaar fakal la xam nga dëgër musóor daa bëgg ay musóor ma gis fi nag ay musóor yu rafet couleur bu nekk mi ngi fi façon bu ne mi ngi fi. musóor yi doy dëgër boo paree boo tegee sama musóor coow li bari. orange bi wër ma waxal xoolal xoolal orange guro bi xoolal lii. jëlal bii. <laughs> waaw loolu de mais périg yaa ngi fi de ñuy sol ñuy sol ñuy sol gis nga. gis nga périg yaa ngi nii ku ñëw ku ñëw daañu jox la ci périg yi gis nga ko yii yu yomb gis nga ko waaw. waaw nga nga sañselu doy waar lii suula solo la xam nga périg liggéey ci suula solo yombul xoolal liggéey bu set bi ñëw leen fii ñu ngi ci foire bi. daal dugg si leen rek boo leen ñëwee rek moom dina leen defar ba ngeen baax jox leen ci périg yi rafet yi jox leen nit ci musóor yi sama xarit bi tàggoor. a ah, dëgër musóor kontaan naa ci yow dinañ déggantewaat merci beaucoup. <laughs> Ngoné Ndiaye ah, borom Aïda Mbène Couture nekk secrétaire général ci fédération bi nga xamante ni ñoom ñoo organiser foire bi mu nekk FENAF commune bu Sam Notaire. ngeen def foire bi bi mooy ñaata euh, édition. waaw foire bi nag bi mooy deuxième édition bi defoon nañ première édition bi fii ci stadium ma Amadou Barry tey nag euh, ñu def deuxième édition fii ci esplanade bu mairie ville xam nga nit soo defee benn affaire say autorité nga gis ne apprécier nañ ko sa population apprécier ko normalement loo war a tollanti lay nekk moo tax ñu ne nañu def expo vente maanaam foire pour que wane fédération bi li ñuy liggéey au niveau département bu géejawaay maanaam particulièrement commune bu Sam Notaire parce que ñoom ñoo organiser lii ñuy wane suñu liggéey doomu géejawaay lan la ñuy liggéey loolu moo waral foire bi. wax nga ko léegi ñu gis na yow yaa ngi ñëw di jaay yow tamit da exposé lan ak lan ngay. waaw man damay jaay ay tenue góor tenue jigéen ak ay tenue xale ak ay dàll tam aussi waaw mais bu delloo ci wàllu tenue yi moom day nekk yi nga xam te ne c'est fait ñun ñoo ko defar waaw parce que fédération bi dafa focaliser wu ci formation comme fédération bi dafa nekk structure boo xam te ne dañ ko structuré maanaam mu am hiérarchie am ay programme formation lañ lay defal bu ñu la defalee formation ba pare ñu am beneen euh, comité bu tudd ko club foire pour que yow liñ la defal formation nga mën a am foo ko jaayee club foire boobu nag mooy bu commune bu Sam Notaire ñoom ñoo initier foire bi pour que formation yi ñuy defal ci fédération bi ñu mën liñ ciy jàng ñu mën a am fuñ ko jaayee loolu moo waral exposition bi. macha allah gis nañ loolu mais li wax nga ko léegi gis nañ ne fii local rek moo fi nekk tey lu dul local gars yi duñ ko jaay wala doo ko fi gis mu rafet lool tey nit ñiy jënd si lan lañ ëpp lu ñuy jënd. waa ñi ëpp lu ñuy jënd nag man dama naa mention spéciale à suñu mbokku góor ñi ñoom ñoo ëpp lu ñuy jënd waaw parce que am nañ fi ay chemise yu góor yu rafet am nañ fi ay ensemble yu rafet chemise euh, nigérien yi xam nga bu njëkk dañ daan gis ay tenues yoo xamante ni suñu mbokku nigérien yi ñoo ko daan sol suñu góoru sénégalais yi bëgg ci mais jotewuñ ci parce que amuñu woon ay artisans yu ko mën a defar fédération bi nag formation yooyu lañ la defal ba lépp lu doomu beneen réew di ñu fexe jàngal la ko ba yow nga mën ko def say doomu réew di ko sol wax dëgg fa neex yàlla gars yi ñu ngi ñëw ñu ngi visiter expérience bi mu ngi yokku gars yi itam aussi maanaam li ñuy wax foire donte jaay bi neex na mais expérience bi moo dàq ak euh, ouverture bi nga ci am te ouverture bi am na macha allah am na. étranger yi ñëw de. bien sûr am na ay étranger yu fi ñëw parce que euh, deuxième jour bi am nañ fi visite ay chinois comme dañu fi am ay travaux ñëw nañu xool si foire bi chaque jour mënuñu toog journée boo xam te ne duñu am ay étranger yu fi ñëw wax dëgg fa yàlla ba pare nag nekk ñoo xam te ñu ngi apprécier liggéey bi ñuy def. si beaucoup ñu ngi lay jaajëfal turóoku ma chérie di kontaan bu baax nag ci KSTV ndax man télé bi moom sama télé la parce que sama sœur moo ko géré mu nekk télé boo xamante ni wax dëgg fa neex yàlla liggéey bu naes rek la ñuy def waaw ñun moom ñu ngi KSTV <laughs> euh, tur bi imam muhibbin la saw buñ ko yàq nag buñ koy bind muhibbin imam muhibbin ñu jógee ci jumaa rek ànd ak xaaj Maysa Fall ñëw fekk ci suñu njaboot yi ne fii ndax ñooñu ko yëgaloon muy nday tuuti hmm? nday ngóone hmm? ànd ak euh, fekk fi Kumba Gise soxna euh, Aminata Diaw ak euh, madame Ndiolé Faye ak président Moussa Fall ñooñu ñëpp tubaarakàlla ñu fekk ci leen fi ndax gis gi ñu gis ci ñoom njàmbaar ak taxawaay ak yitte te yonent bi sallallahu alayhi ñu waxoon ci xadis ne imal li dunyaaka ka annaka taichu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada waaw travaille pour ce monde si comme si tu devais être mais aussitôt s'occupe-toi de l'au-delà comme si tu devais mourir à l'instant maanaam dundalal sa àdduna di ko toppatoo mel ni yow doo ba faw waaye boo ci jógee toppatool sa àllaaxira di ci ne di ci ne ba mel ni yow da ngay dee suba équilibre boobu la ñu fi yàlla indee paa koo xam ne day dund toujours àllaaxira mais pas koo xam ne day dund toujours adduna da boole ñaar yi te ñoom nag ci wàllu googu nañ nag di liggéey ci wàllu adduna lu ñu mun a terale seen bopp terale ko seen njaboot sàmm seen ngor surtout ñuy jigéen bañ tàllal loxo nga xam ne jàmbaar nañu doon lu ñu ne ko leen ci fekk ñu jël waaye ña ngi ca waar wa loolu dañ ko war a encouragé seen maam Cheikh dafa waxoon ne Ahmed Tidiane yal na yàlla yokk leeram doomu aadama ñaar rek la war a sonne dirhamun lil maash wa dirhamun lil maad maanaam lu mu dërëm bu mu yóbbu këram ak yiw bu mu yóbbu bàmmeel dërëm boo yóbbu sa kër ak yiw boo yóbbu bàmmeel lii moo fi nekk lii nañu fi indee moo tax rek ñoom laa li ma leen wax sànq mooy bu dul woon tailleur julli du rafet kon nag domaine bi ñu nekk di ci liggéey ci wàllu tailleur di am euh, créativité surtout te yàlla dafa bëgg doomu aadama di am créativité moo tax mu jox ko xel gënal ko ci mbindeef yi mu bind yëpp wa laqad karramna bani aadama wa hamalnahum fi l barri wal bahr loolu ngëneel googu mais du dara lu du xel bu dee lekk la ñu ngi bàyyi ma yaa ngi lekk bu dee naan la bàyyi maa ngi naan bu dee sëy kazalik mais ngëneel gi ñu gënee yeneen créature yi ci xel la naka nañu liggéey suñu xel ba tàggat ko ba ci génn loo xamante ne ku ko xool xam ne lii rafet na jekk na kon fa la loolu dañ leen ci encouragé di ñaan seen mbooloo mi yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla sàmm leen defal leen ci ay ndam ndam yoo xam ne di gën a kawe seen njort sax buñ koy defeti foire bi yàlla na yàlla yóbbu ko foo xam ne day nekk sax international ngeen di dem bay wàlli ci yeneen foire yi nekk ci yeneen réew kenn te lépp nekk njiglaay yéen ñi doon filmer it yor kii bi communication bi yàlla taxawu leen seen site yeeg seen yàlla yóbbu ko fu gën a kawe seen njort bu baax a baax di leen ñaanal yàlla ki nekk fànn bu ne bi nga nekk li nga moytu jara moytu rek wax naa ko sànq mooy euh, alxalaalu bayyinun wal xaraamu bayyinun fexe rek ba li ngay liggéey nga bañ ci def lu xaraam mais lu dul loolu créativité yàlla da koy encouragé wax naa ko sànq ba ci ñiy def diw waaw ci bi ma koy wax xam naa ne ci presse laay wax te man mi koy wax imaam la jàngalekat la kon xam naa li may wax mm-hmm. sa der bi yàlla dala ko jox danga am responsabilité ak moom amel ko àq da nga ko war a toppatoo. ba atmosphère bi du ko ak du ko du ko du ko agressé. Mhm. du ko yàq. Mhm. toppatoo ko di ko diw ak boo ko amee la. bu mhm. tax ku la wax yeneen xamul li xew rek. xam nga léeg nit ku déggam des. as yëpp di si gën a bon mooy as as as xam-xam. rewee eh day sonal ñëpp. as wërsëg day lëjal ñëpp. as ngor rek a baax. rewee eh rek tubaarakallah. yal na yàlla nangu. wa zalika ala llahi bi aziz asalaamaaleykum wa